direct sur Zik FM et Sen TV bu leen ko fàtte les chaînes leaders ou bien vous nous suivez tout simplement sur nos plateformes digitales. ayca kon nag Yacine yaakaar naa ne mën nañu dem. ak ci li yéene kaay xëy fësal gannaaw ba ñu nuyoo suñu bokk yëpp nag ñi nga xam ne waxtu yu jotee faw ñu jox leen li yéene kaay xëy euh, fësal ñu koy door yéene kaay groupe des média dafa ñëw ci digga bor la ñàkk koo def war la ñu ne Biram Souley bi nga xam ne ñoom ñoo ko digga woon tey jii ah, ni ñu gisee mu doxalee ko du tànki nag def maanaam tànki war la ndax nag euh, cumul de fonction ñoom ñoo waxoon dañu koy bañ te tey gi nag fa mu teg tànk moo di ay explication yi mu andi moo Ousmane Sonko moo fi waxoon ne bu fekkee. dañ ma tabb ma dugg assemblée nationale dinaa fexe ba taxawal benn loi bu nga xam ne dafay tere définitivement cumule de fonction waaye moom du ay kàddoom kon moom ni mu waxee mooy du samay wax waxi Ousmane Sonko la bu ma kenn imposé nañ ma bàyyi samay wax moom su Souleye noonu la gisee. ci yéen kaay groupe de média yéen a kaay groupe des médias dafa ñëw ba tey réewum Sénégal. dafa mel ni kon nag euh, gobar jaas yi la ñu fiy dundee ba léegi. Mm. donte suñu suuf naat na lool baa ngi fi. pétrole baa ngi fi gaz baa ngi fi daanaka loolu lu mu am sa suuf te suuf si loo ci bay mu nangu loo si jëmbat mu sax euh, waaye nag terewul dundu gobar jaas bi ñu fiy dund togg añ tubb sa reer ñetti toom yi pend naar yi daanaka kenn mataleetu ko euh, maanaam ndékki añ reer loolu moom amatul yéenekaay bi dikk na ci les sénégalais continuent de patauger dans la pauvreté ñu gis ko benn bool bi ñu teg nii euh, kenn xamul togg bi ban xeetu togg la li ci dégg bi sax kenn xamul ndax njëkk tray la am déet en tout cas bool baa ngi nii bi ñëw ba tey ci directeur bu Sogas xam ngeen ne waa véto vétérinaire yi dañu takku taxaw nag daal di koy porter plainte moom ci boppam directeur bu euh, Sogas directeur général bu Sogas nee na fonctionnaire vétérinaire bu nga xam ne ni mi nga xelam di doxee xelam di wéyee xelam hmm, a may mu ne damay porter plainte ak fii ñu toll xam nga ñoom dañ ko porter plainte parce que dañ jàpp ne kon dafay jaay yàpp bu nga xam ne ni kenn contrôlé wu ko hmm. parce que foofu la ñu war a contrôlé te kenn contrôlé wu moom ci boppam mu ne vétérinaire bu nga xam ne mu ngay xelam warul mën a dem di porter plainte contre ma personne yéen kaay bi euh, dikk na ci. Hmm? ah kon sëkk bi di dikk ñu ko ah ku àndul ak xelam kay wéeroo. njaga wayu leen du samay kàddu de yéen kaay bee ko wax nee directeur général bu Sogas moom moo ko xam ne Vox Populi moom li mu wax moo di si sunu gaynde fu mu nekk nii nag tey la ñuy dugg euh, entrée en jeu tey la ñuy sóobu ci compétition bi Qatar mondial suñu jaay fës kee ne jàkkaarloo Pays-Bas. pays baa nga xam ne ñoom ay orange lañ leen di dàkkantalee ba àddinay baax nag gaynde moom wax fa dëgg neex yàlla orange du ko téye bi àddinay baax xaw ma nag bi àddina soppeekoo mais bi àddinay baax gaynde moom orange du ko téye en tout cas véritablement confiants loolu la Aliou Cissé wax moom sélectionneur bi nee nañu suñu xel daal na dañuy soobu jongante bi ak xel mu daal kon nag ndam rek lañu ñu mën a am Yacine looy xool sans maillot bi <laughs> waa kii nee na man maillot Guinée laa sol lu mu tudd Fapal Fapal dafa soxal yow ñu solal ma on dit solal ma maillot bi. waaw sa waaw sa sa maillot bi nag siiwul <laughs> bi bu ñëwee dama ko ne sax est doo gardien waaye xam naa ne xale yi mënuñu ko. maillot gi saxatane. Ah, ah. Yacine bi ah. tubéy bi. xale ko xale ko ah bon daa comme baax. ma koy remercier on di moom la jox ensemble bu rafet waaye. xale yi miinuñu couleur bi de maam la du ànd laa jin bi de ensemble la. tubéy may ngi ci biir. xale yi miinuñu couleur bi de président mu nekk nii nee na suñu gaynde yi. allez-y song leen rugir leen dal leen ci kaw orange yi dëggaate leen nappaaje leen bu dara des moom président Macky Sall ci Vox Populi loolu la woote kon nag ku ne orange da nga koy danga koy nal danga koy pressé da nga koy nal danga koy muucu. màcc ko ba mu jeex kon sunu gaynde yi bu leen ci bañ uum dem leen ba mu ses orange bi lu mu weex weex weex màcc leen ko rek lekk leen ko ba fulli ko dëpp lekk der yi ci biir en tout cas yéen kaay bi di Le Quotidien loolu la woote Sénégal Pays-Bas rendez-vous bi bàkk ba 16h lay jib ñu fës kenn jàkkaarloo ñi nga xam ne mooy waa Pays-Bas orange yi président Macky leen ay champion d'Afrique ngeen te champion d'Afrique du ay caaxaan réewu Afrique yi ci football yéen ci mën kon na fexe leen ba réewu àdduna bi ci football ngeen mën ci te lu mën a nekk la. jombul kenn bal la rek te bal dëkkul fenn fu bal dëkkul fenn affaire bi osé la rek te Aliou Cissé nee na am na confiance. 24 heures dafa euh, ñëw ci les chantiers de Moussa Baldé xam ngeen ne moom moo jàkkaarloo euh, député yi euh, moom votum budget ministre de l' enseignement supérieur nee na ñu nag wax fa dëgg convaincre na. taxaw na nekk comme professeur waxtaan ak député yi ba vidéo nag mujj nañ ko ko votel 24 heures foofu la génne grand place bi mu génne mooy installation d'une fonderie à Kër Mor Ndiaye sa en tout cas askan wa nee nañ ba bu mu fa sampe catastrophe écologique la bu mu fa sampe liggéey yooyu ñu tàmbali nañ ko arrêté ndax lu muy jur sa dëkk ba moom wax fa dëgg du neex. lu ñu fa bëgg a samp. benn fonderie foofee nga xam ne moo di sa euh, kër Mor Ndiaye askan wa nag nee nañ euh, travaux yi foofu si boppam nañ ko arrêté parce que seen ak wér-gu-yaram ci boppam moo si nar a sooxe. te loolu du jëm kër. génnekaay bi wax na ko. Mm. Euh, un début de mondial à haut risque forfait cas Ismaïla Jacob blessure de Ballo Touré en tout cas lu mu ci doon ñun suñu Sadio Mané dafa absenté waaye nag équipe la euh, ñoom ñëpp ay gaynde lañ par exemple Macky Sall nee na mët la bu ñu waxee mët benn gaynde bu ci manqué sa terewul mët baa nga fa ba léegi te ñoom ñëpp ay gaynde lañ donc nag dafay njëppi gaynde rek waaw gaynde daal fàdd la baaxoo fàdd leen l'évidence Euh, ñu waxtaanee implantation fonderie boobu nga xam ne sa kër euh, Mor Ndiaye agriculteurs yi ak aviculteurs yi nee na ñu na liggéey ba arrêté loolu la ñu bëgg du leneen lu nga xam ne euh, soxla. rendez-vous war ñu ko manqué équipe day am tël te tël bi ñu wax pays bala bu ñu ko dóoree am tël bu nga xam ne nii ku ñu jàkkaarloo lañuy ragal les travailleurs municipaux rangent leur cinquième plan d'action kon fu mu nekk nii ministre des collectivité territoriales kon jox na leen nopp bu baax bi waxtaan nañu déggoon nañu si ay pour le moment. Euh, euh, jël nañ seen cinquième plan d'action bi teg ko ci suuf ndax ministre bi déglu na leen waxtaan nax ñoom euh, donc nag Yacine bàyyi sama blouson bi ngay xool waaye Yacine tamit ah si ginnaaw tubé bi bañ a fenn Yacine dafa mën a découragé nit en tout cas. ñoom pare nañu. dama ne Mamadou Fofana enquête dafa ñëw ci Bonda Sénégal Pays-Bas 16 mondial 2022 Sénégal Pays-Bas nee na 16h la Mamadou Fofana donc sunu gaynde pare nañ pour yuuxu xatalaar yi dal ci kaw li nga xam ne mooy mooy mooy mooy waa orange yi. c'est parti kon daf génn bàkk ba jib na euh, bi yeboo ñu xam ne coupe du monde bàkk ba jib na 16h ñu fas yéene dem soobu ci li nga xam ne moom mooy <laughs> jongante Yacine bëgg ma sa jëkkër. wërëb a dem na kën. wërëb a dem na kën waxi mag dem na ndantaan. waaw sunu gaynde nag. Lion euh, lii lan la Lion no destin. mondial Sénégal Pays-Bas 16h euh, la gauche décimée Cissé nag wax fa dëgg nekk yàlla El Tactico li bi ñuy woote noonu hmm. biñ ñu koy dàkkantale tey la ñuy mën a xam nag tactique am il faut eh, mu user tactique boobu ah yàgg na ko fee user mais il faut ñu wan ko ci mondial bi kan na El Tactico Sadio nekk fi na user si tactique boobu Saliou Ciss Saliou Ciss Ballo Touré ñàkk nga ko waa léegi sa Sakho problème u moom it kayit ak téye. ñun ñu daal certainement certainement kii mooy dem foofu noonu abu Diallo. <laughs> ak ku mënti ñëw rek ku mënti ñëw gaynde nga. Hmm. ku mënti ñëw gaynde boo jàppee ne yow gaynde nga rek. bu ko defee doomu Pikine bi nekk ci axe bi ak. Euh, hmm. ak euh, Kalidou Koulibaly bien sûr. yow classement boobu nga gis. ah mais amuñu beneen gauche it kan mooy dem gauche. Euh, pronostic bi ngay joxe ñaata la. pronostic. waaw 1 na de. ah mais loolu nga gis bi nga tëddee guddi nii nga géntee xam nga la moo ci am solo. résultat ah. final bi nga gagné. même si c' un but. nag dafay dafay dafay dafay métti parce que da ngay football ba fin mhm. da ngay joxe ba ci fin parce que sa benn boobu nga lonku am. 2018 club club équipe bu mag nga ñam nag. équipe bu mag. donc du yomb duñ leen c' est vrai que. nee nañ kii euh, euh, euh, sunu poule kay bii mooy. équipe bi mooy affiche bu mag bi. waaw bu mag bi Sénégal Pays-Bas la suñu sunu Sénégal ci favori yi la bokk de. Ah. ñu jàll ci euh, Walf Quotidien dafa ñëw ci Sénégal Pays-Bas 16h pressé à fond l'orange mooy li ma doon wax sànq orange moom xam nga lan la baaxoo bés rek ba mu ba ba mu toj yàlla mu nekk orange bi di waat yaaxu bu nëb bi da ngay def ko jus donc ñun ñëpp suñu gaynde dañ nangoo naan jus ah? dañ koy nal dañ koy paccal nal ko naro naro naro nar ba mu jeex nga fulli ko nii lekk <laughs> lekkatu orange ngay wax de <laughs> nekkat orange <laughs> waaw pourtant y' a El El Malick waaw peut-être El Malick. bien ba ngeen xam ne fii euh, ku nekk ak sa classement douzième gaynde bu nekk ak sa sa classement bi ngay joxe waaw douzième gaynde bu nekk ak sa classement bi ngay joxe Sénégal Pays-Bas 16h bi kon nag li moom bàngoo bu nañ ko pressé wala orange bi Qatar nekk te football mooy boole ku ne. fu mu nekk nag Karim Meïssa Wade ah président Macky Sall faw ñu toog. nañ toog nag. faw ñu toog. day dem sa match ba fan lay toogee sa peggu président ma Sall wala day toogee nee di màcc ay crémam est-ce que président Macky Sall que Macky Sall mu ngi fa président Macky mais gëm naa ne président Macky Sall mën na dem. mais maam nag bu la Onda e eh, solo la te bi kontaan naa si. vraiment tubéy bi tam maa ngi comme gaynde. tubéy bi tamit. ci sañse bi la bokk. waaw man maa génnul tubéy bi ah, rek. Eh, bu rafet la tubéy bu rafet la boole. Yacine kenn ko tubb Moussa si. yow su tubéy daal yow su mbub. waaw merci. yow mu non man maa yor kii la rek t-shirt la rek. ah moom itam. non moom ensemble la. blouson la rek. waaw mais. <laughs> man man man sama tubéy daa ànd sama waaw foofu na <laughs> loolu kay loolu ngi nii foofu na bosom maillot kese la sol Elhadj mi ngi nii tubéy bi àddul kii man sama maillot bi laa ko sentir de tey boo doon génne ñi seen tubéy ni bi ñooy ëpp de bàyyi bàyyi kii ba nar a daan kii sax eh, on dit bi rafet na ba bëgg a dee très joli ensemble bi nga jox ensemble kii on dit euh, euh, ku baax waay maax moom huit heures jot na baax sax ondi dit on dit soo soo on dit xat na Qatar 2022 <laughs> Sénégal tey jii lay jógante ak Pays-Bas ci bu ñeenti waxtu jotee choc bu am solo ci poule A bi démb moom Équateur daa tëj ci réew ma dalal xew muy Qatar lu mooy loole dinañu dinañu wax ci wàllu caxat-caxate suuf si am na bërëb bu ñuy bay euh, fële ci biir Sénégal ñoo fay exploité mer nañu lool te duñu nangu benn yoon mu jàll junni ak juróom fukk ci hectare euh, la ñu ni dañ ko bëgg wàññi ba mu des juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar ci ay te loole ànd ñu ci wàllu éducation euh, ñàkk respecté accord yu bàyyeeku ci nguur gi la SAEMS di tiit ba tax mu dànkaafu gouvernement bi ni leen janvier 2023 ngeen waxoon buñ ca yeggee te dara amul daanaka retour Noël yi moom uwa lay doon